suñ daara ji nag moom am na ay jafe-jafe parce que kii dooleem rek lay demee parce que Kayar ku ne xam na dëkku géej bu géej gi doxee ñu fay bu géej gi doxul duñu fay mais lépp bëggul xale yi manqué dara lépp day demee diineem demee ngorom mais daara ji xale bu ndaw la dañ koy gis mais dafa jël àddinaam yëpp jox ko daara kon nag bëgg nañ ku nu dimbali ñun jigéen ñi ñu ngi ci biir di leen jàppale mais doyul amuñu ay moyen daara ji amul moyen ko torop torop torop dooleem rek lay demee xale yi nag fexe na ba duñu xiif duñu mar am nañ am nañ yëpp mais ku ñu dimbali daal moom bëgg nañ ko ci daara ñu ngi si tàllal ñëpp loxo nag ñu ngi tàllal ñëpp loxo suñu daara ji bëgg nañ am ndimbal ñu ngi ci saaku ndimbal parce que suñu doole rek la ñuy demee kenn dugal ñu xam ku ñun suñu doole kon nag ñu ngi saaku ñëpp ñu mën a jàppale ci daara ji nga ñëw jàppale ci daara ji Kayaar dëkk géej la tey mu neex suba du neex te daara ji ñeenti téeméeri xale ñi ngi fay motuñu ñetti téeméer ñi ngi fay motuñu ñetti téeméeri xale te bu ne 20000 la lay fayeeku te ñenn ñi du may internat téeméeri xale rek ñoom ñooy internat ci def ay externat lañ te fay gi maase wu fay gi doon maase ñun du am kon nag ñu tàllal ñëpp loxo di saaku si ñëpp ndimbal jërëjëf.